Touba fekk fa en direct Mamadou Makhtar Sarr Mamadou maa ngi lay nuyu. naa maa ngi lay fay. Euh, ndax mën nañoo dellu si ci cong li nga xam ne nemmeeku nañ ko ni ki démb euh, fu fekkee ndamatu. waaw bi ci guddi la Kër Baye Laat lu ëpp fukki nit ak juróom nekkoon ci benn 4x4 ñoo song station Firingue bi nga xam ne moo nekk foofu ci Kër Baye Laat euh, li ci gën a yéeme nag mooy ñoom sàmbaaboo yi def nañ ko daanaka lu jege fanweeri minute bi ñu ñëwee tiire nañ ñetti bal toj li nga xam ne moom moo di épicerie bi. jël fa lépp lu leen neex yemuñu ci ñu song bureau bi euh, daal di koy daj yi ñoom ñu sambaabo yi jël li nga xam ne moo di coffre-fort bi coffre-fort bi nag dafa diis waaye nee nañu am na ay jaaykatu jën yoo xam ne fajar gi dañuy dem ndëbin ba xam nga sàmm ñi nga xam ne xam nañu Tuubaa xam nañu ñu ba mooy fi ñuy jaayee jën ñoom itam ñu kar leen nangu seen i xaaj ba noppi ne leen kaay leen jàpp ci li nga xam ne moom moo di euh, coffre-fort bi ngir yéege ko ci oto bi wax nañu ne nag lu tolloog ñeenti million bu ñu woon ci coffre-fort bi ba noppi ak yi nga xamante ne moom la euh, pompiste yi jotoon a jaay. yemuñu ci it gardien yi tamit am na ci koo xam ne fitnaal nañu ko ba jot koo laal ci jaas yi waaye nee nañ ne gaañu gaañu doy waar parce que xam nga ñoom dañ lay dàpp euh, soxna Assa Gawane Mbacke moom li nga xam ne moo nekkee ci. ci station bi yoroon ko dafa mer lool lool lool bi ñu jokkoog léegi moomu téléphone xamal nañu ne lii leen gën a naqari mooy bal yi moom mënoo ko tiire te commissariat bu ndaamaat dégguñu la parce que euh, distance bi sorewul dara nee nañu nag loolu ñu def ko fanweeri bi ba pare gisuñu da kenn ba ñi nga xam ne ñoo di samba bu yi dem ñun ñuy doog ñëw te samba bu yi taxoon foofu doon tar ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñiy dem euh, di jaay jëm ci fajar gi jàpp na ne loolu ñàkkum kaaraange gënu koo jéggi dayo donc loolu daal la ñuy ñaawlu lool lool lool fi mu nekk nii nag ñu ngi xayma mbir mi naka la demee parce que daal li ñuy jot a gis ñeenti million la li pompiste yi jot a jaay ci guddi gi moom calculé wuñ ko waaye nag lii day tax rek ñu gën di lam-lamee ñàkkum kaaraange ci dëkk bu sell bi di Touba euh, Seydina Omar ba parce que yàgg nañ di ko waxtaanee te xam nga ne Touba dëkk la boo xam ne nit ñi njaayam jën wi dafay am doole lool te chaque guddi bu fekkente ne 4-4 bi dafa continuer nii boo moytuwul dina yóbbee bi ñu ci ndóol parce que du benn du ñaar du ñett. ñuy gis ay jëmm ci dëkk bi seen biir Touba Abdoulaye euh, Seydina xam naa dinañ ci dellusiwaat bu dee amuloo beneen laaj euh, ci xibaar yi di ñëw bu fekkee amuloo beneen laaj nga delloo la antenne bi ci doon jokkoo ngeen di Mamadou Makhtar Sarr pour la rajo télévision. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi koy sant di ko gërëm kon mbokk yi mu ngoog ab cong la boo xam ne mu ngi am ko niki bi que euh, fële ca Ndamatu ci quartier Baylat ab station essence moom la ñu fa songu jot nañ fa yóbbu nag lu ci toll ak ñetti millions ci